maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ñu am mbégte lool ngir àndaat ak yéen rawatina tey jii nga xam ne ñi ngi fii ci Porokhane Porokhane nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci ki nga xam ne nag moo di soxna jaaratullaahi di waajur ci ki nga xam ne nag moo di suñu yaakaar tey ak ëllëg euh, muy Serigne Touba donc loolu moo tax euh, tey ñu ñëw fii nga xam ne nag moo di Porokhane bu ñu nee Porokhane nag lieu la bu nga xam ne yaakaar naa ne lieu bu ëmb histoire la waaye tamit bu ñu nee fii la ñuy amalee màggalu Soxna Jaara dinañ ci dikkaat xam naa ci ay plateau looloo tax nag euh, tey euh, ñi nga xam ne noo di vingt 24 actu daal di déplacé li nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne am nañu ko ngir indi fii ci Porokhane ngir lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu màggal gi nga xam ne moom la ñu fii amal dara bañ leen ci ci gis ngeen ay reportage ak yeneen yoo xam ne euh, def nañu ko voilà bu ñu waxee tamit ci lépp loo xam ne nag jëm na ci lieu bi nga xam ne moom la ñu nekk ku nekk xam na ne lieu la boo xam ne dafa ëmbul lépp loo xam ne jëm na ci wàllu histoire Euh, histoire ñi nga xam ne ñoo andi fii euh, soxna jaara ba tey ñëpp di nga xam ne di ñëw fii di bàyyi ko fu nekk di ñëw di ko ziar si yaakaar naa loolu histoire la waaye bu ñu ko defee jàngat rek dafay nekk ni lépp dafay jëm ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm waaye tamit lépp loo xam ne itam jëm na ci wàllu wéetal euh, boromam waaye tamit liggéeyal ki nga xam ne nag moo di Mame Mor Anta Sali ndax ku nekk xam na ne histoire bi amoon ci diggante ñi nga xam ne nag moo di Maba Jaxu Ba ak mbir yàq na mu demee donc ba soxna Jaaratu Laay installé wu fii ci Poroxaan waaye tamit euh, ñu gërëmee ko mu Mahamadul Basir mi nga xam ne moom moo retracé fii ci ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba lépp loo xam ne jëm na ci barab bi nga xam ne soxna Jaaratu Laay ba at mu jot jullit yi di bàyyee ko fu nekk ngir ñëw di màggal si li nga xam ne nag moo di màggalu Poroxaan comme ni ngeen ko gisee fan yi ba léegi rek nit ñi di bàyyee fu nekk di ñëw euh, ngir màggal si moo euh, soxna Diarra mu nekk jigéen goo xam ne daanaka ak dundam mënees na koo tënk ci fanweeri at ak ñett waaye ci diirub loolee mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne na ko fi waaye tamit poroxaan ji nga xam bu diir bu gàtt ñu bëri dañu jàpp ne soxna Jaaratullaahi euh, ku yàgg la waaye bu ñu liiree histoire rek dafay xamal ne diir bu gàtt def poroxaan waaye liggéey boobu mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne tey yaakaar naa umma islamique bi yëpp ñi ngi ciy jariñu waaye tamit ñi ngi ciy joxe ay exemple ne soxna jaara mun nit ñi di bàyyi ko fu nekk gis ngeen euh, li nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw fi mu tool nii moom c'est le noonu lañ ko mën a waxee nit ñi ñu ngi bàyyeekoo fu nekk ngir ñëw fi nga xam ne moo di barab bu sell bii di Poroxaan donc ñun itam dinañu def euh, li nga xam ne moom moo ñu war ñu ànd ak yéen ngir gunge leen ci jotaay bii nga xam ne dañ koo jagleel lépp ci màggalu ko Poroxaan yi gis nañu teen bi nga xam ne soxna Jaaratullaahi euh, foofu la doon rootee visité nañ ko gis ngeen nit ñi tamit ni ñu fay demee lépp ngir sàkku ci barkeb soxna Jaara bëri loo xam ne mënees na koo jàngee ci moom ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu àdduna waaye lépp loo xam ne déggal boroom këram kon yaakaar naa ne dinañu dund moment yooyu ñu nekk nag fii nga xam ne mooy euh, fi ñu ko denc moom soxna jaaratu laay gannaaw ba ñu demee ca teen ba jaaraat fi nga xam ne fa la soxna jaaroon fa la soxna jaara jaaroon dinañ ci ànd ak yéen euh, équipe bu 24 actu yi euh, seexu naa moo nekk ci caméra bi xadiña ci montage bi euh, Awa Ndiaye Ousin Mbo ci coordination bi ñu ngi leen ci sant baax di leen gërëm kon ñu ànd ak yéen dundandoo lii nga xam ne moo xew fii ci Poroxaan ci màggal 2019 màggal édition 2019 fii ci Poroxaan seexu naa ñu dem xool ci biir li nga xam ne mooy taalibe yi ni ñëwee bi euh, sekk si jigéen gu sell jooj yi muy soxna jaaratullaahi fusti bi حسنات زيادة لمحسنات مريم فوق دمخينات عند الذي لم يدرك كن فيا ربك فسوسوتي خات ولم يكن بمسريك لم يخفي للمؤمنين كونك المزينين يوما خير مسنين مزمة من سراكي يقودني لمديك معا كفالا خدوك فسبي بي للمرهيك كل تاخي المدرك وجاتك اليوم بما يدم لي ختن بما إلى تيوا إيسى بما من خير غاس سدراكي أنت سولا لا تلكي لنغده كي فسبي بيس رمريك كل تأخي إن مدريك وأجاتك اليوم بما يدم لي قوتا بما إلتي وإيسى بما من خير خاسد راكي أنت سلالة الكرام ما منا أكل وأنت سلالة تولتيرام بلانتيان لسوراكي سكرارا بن الكريم سنوكي سكرا لا يريم يمنكينا لما يروم إن لزيم لم يدركي رمتم بزامن بك ردا يديم غربك من ربي تلبك متلودا أنزكي maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam